koy nii lañ koy organiser. Mhm. football ay match tournoi. après màggal gi. lépp dañ koy tax teg ci loxo loxoy sëñ Saal mu sëñ Alaaji Baara. avec à l' intermédiaire de de suñu grand ngom. ñu def ko dans le cadre bu gën a am yar ak teggin parce que environnement bi ñu nekk la. waaw lancé waale ci benn message mooy ñun ñëpp dañu am sacerdoce ci dëkk bi am sacerdoce ci ci ci Sénégal gi yëpp mooy li ñu li ñu li ñu war mooy ñu góorgóorluwaat bu baax a baax a baax ñun ñëpp. comme ni ñu ko waxee ñeneen ñi sax xëy na dégguñu information bi mais ñun ku ci ku ci ku ci jot information bi rek mën nga koo relayer keneen ki parce que ñun ñëpp benn lañ ñun ñëpp dañoo war a àndandoo bokk bokk ndey bokk baay di xàccandoo di dóorandoo ba tax na suñu doomu dëkk la président Abdoulaye la moo bëgg a bokk ci élection présidentielle yii di ñëw muy doomu réew mi di doomu Sénégal particulièrement di doomu Touba dëkk ci dëkk bi def fi lépp fii la defee lépp te lu mu am Touba la ko yéene. depuis 2016 ba léegi avant màggal gi chaque année avant màggal gi vingt 21 jour avant màggal gi suñuy activité yëpp dañ koy su ñu matériel yëpp déployé ko fii jébbal ko xalif général des Mourides mu jox ko xalif général des Baye Fall ñu nekk ci assainissement dëkk bi. 2016 ba léegi ñu ngi ci ak yeneen yeneen social yu ñu fiy def yu yu baree baree bari tàmbalee ko ci barabu sëñ Fallou barabu sëñ Sidi Mokhtar bi ak yeneen ak yeneen ak yeneen. centre hémodialyse bi gën a rëy ci Afrique de l'Ouest ñi ngi koy tabax mu ngi mille abrité 1300 places lii ñi ngi ci léegi ñu pare ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen sur le plan social ba tax na dafa dañoo nit ñi dañoo nam rupture du politique yi rek ñoo war a gouverner dëkk bi am na ay doomu réew mi ñu fi nekk déterminé wu engagé wu seen lépp ñu jox ko réew mi. association patronat bi li ko tax a jóg mooy cinquante cinquante maanaam entreprise yi marché yi ñuy jël ko attribuer entreprise étrangère yi te entreprise nationale yi nekk fii investir fi di fi employé ay doomu sénégalais plus de mille sénégalais nekk ci entreprise bi mu nga xam ne nii fa la ñuy liggéeyee muy groupe d' entreprise bu rëy ñuy jël entreprise étranger yi di ko favoriser suñu kaw loolu lañ bëgg mu dakk loolu mooy soubassement wu xeex bi yëpp ba tax na ñu ngi leen ciy wooyeen ñëpp mu yónni ñu ci askan wi wax ñu ne foog foo leen dem dans les 46 départements ñu créé fa benn association c muy dem ci développement dëkk bi ñu ngi leen di jaajëfal di leen lancer message bi di leen wax ngeen jàppale ko seen doom la seen seen mag la seen lépp la waaw asalaamualeykum wa rahmatullahi mu ngi noonu si la mooy suñu candidat 2024 incha allah. jërëjëf waaw ah, di wax ne vraiment am nañ kontaan ah, si tey ji nga xam gis nañ koo xam ne par exemple dafa bokk si doomu dëkk bi ah, ñëw mu am objectif yu noble si. Sénégal parce que dañu dëgmal ay élection léegi ci kaw loolu comme li ñu wax rek bay sawewu tànk mu ne bala ma dem fenn il faut ma njëkkee ànd ak jeunesse su Touba te ku wax jeunesse wax sport parce que nit booy dem si moom da ngay jaar si li mu bëgg ñun sport la ñu bëgg léegi nag ñëw nañ may ñu benn match de gala kon mu nekk loo xam ne lu ñuy rafetu la a ah, ñun tamit pare nañ pour jàppale ko si lépp. parce que non seulement que ni doomu dëkk bi la te itam ndaw la comme ñu ngi dëgmal ay élection damay ñaar sama mbokk yëpp kenn ku nekk fi nga xam fi nga dëkk parce que ñun mën naa ne ñun ñun Touba gépp lañ dëkk parce que ñun ñëpp bokkuñu benn quartier ñee ngi dëkk Teen Maam Cheikh ñi dëkk euh, yoon daaru ñi dëkk ndaamaatu voilà ñi dëkk Kër daaru ñi dëkk Kër Ñang kon mën naa ne mën naa ne mu ngi nii en miniature quoi en quelque sorte parce que ñu ngi jógee fépp si gox Touba yi donc may may lancer un appel donc à toute la jeunesse kenn ku nekk nga xam ni kii nii di Abdoulaye Sylla a ah, doom waa Touba la léegi dafay dugg si politique war a poser candidature si élection yi nga xam moom lañ dëgmal dans six mois donc ñu si lancer appel di woo ñëpp na si ñëpp jàpp ah man day Moussa Kane wax dëgg yàlla pare naa parce que lii def ñu manqué woon ñu gis koo xam ne dafa bokk si dëkk bi ñëw am initiative bu noble muy diriger la diriger la pays te jombul kenn xam-xam rek la laaj te ñun on est ko que Abdoulaye Sylla am na xam-xam pour mën a jiite suñu réew. kon la jeunesse de Touba ñu ngi leen lancé un appel neleen doomu dëkk bi ñëw na ñun ñëpp nañ ko jàppale pour que prochaine élection yi nga xam moom lañ dëgmal mën si am ndam lu yaatoo yaato yaatu voilà jërë ngeen jëf waaw